برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان man alaaj jibril sam ma di la wax ne li ma xam ne fàttaliku naa ko ci mooy sama baay boo xam ne ñu di ko wax alaaji Cheikh Ndaw di muqaddami baay doon nit yàlla doon kut rëy ci pay bi kuy ràññeeku ci pay bi moom ci sababam ci laa ñëwee ci baay sama baay ñu ngi koy wax ba këri Samb dëkk Bawal ndax li ma xam ci sama baay baay moom ma ko nettali waaw man ma nekkee bëkk néegu baay euh, am na yu bari ci néeg baay maa ko amee woon disque boobu ñu doon teg ci jumaa ji maa koy teg maa ko jox bi moom ma ko di ko teg maay conduire oto bi maa nekk chauffeur bi bépp garab bu baay daan naan sama loxo la nekk maa ko daan bës ajjuma ji jot maay séddale añ bi ci néegam gàmm ak siyaare yi maay séddale añ bi bu baay amee gan maa koy recevoir maay def cérémonie bi gan gum am maa koy maa koy recevoir gan gi bu fekkee ne invitation la it bàyyi daawul tardé benn waxtu ci jumaa ji waaye léeg-léeg boo xamee ne demul ci jumaa ji daf naa ma waxal sëriñ àll yi mu julli noonu laa nekk woon ak moom loolu moo doon sama mission ci moom àggoon naa foofu ak moom ngi sant yàlla ci loolu yàlla mooy maye te li muy may mën na ko may ku ne lu ko ko neex na koy may lépp loo xam ne def na ko te jëf ja nga seet ko te bëggul ak sariyaatu ka wax ne baay wax na def na ko waxul dëgg baay Mbaye dafay wax ne euh, baay bu defee dara wala mu wax dara mu jaaxala mu ne mbaax koo xamagul la noonu daan doxale ñun bëkk néeg yi nekkoon ci biir néegam sax kenn ku nekk am na màcc lu mu la jox. takkusaan jotee dafay génne pilaan bi foofu. booba booba mi ngi jàngale jamono boobu dafay jàngale booba ñoom Baba Lamine Mahi bu Baye génération boobu yëpp Naziru ñoom génération boobu yëpp moo leen di jàngal euh, daf maa mas ne ma xale yi nga xam ne yóbbu naa leen Misra euh, mën na ñooy jàng fii ndax li ma jàng fii laa ko jànge Jóob ni ñu ci xam-xam itam maa ko jàngal mën naa leen jàngal fii lépp lu ñu bëgg a jàng ci xam-xam mën naa leen ko jàngal waaye nag damaa bëgg ñu génn pour pour yeewu pour ñu eew moo tax ma génne leen waaye du pour xam-xam ndax man fi laa jànge seen mag yi fi lañ jànge ñoom ñëpp fi lañ jànge waaye génn dafa baax moo tax ma bëgg ñu génn dem ci bitim réew bu ko defee eh, dinañ xam-xam-xam te dinañ yeewu Cheikh Tidiane xalifa bi moom la njëkk a yóbbu Mauritanie mu jàng gannaaw gi euh, ànd googu ma àndoon ak ak Makhtar ak euh, Imam Assane dem Mauritanie yóbbaatul kenn ndax daara ji lew na la nekkoon rabaani ame ko gannaaw gi bàyyi jël daara ji toxal ko Mirina comme ni nga ko waxee Abdoulaye rabaani mi ngi nekk mag ndax sëgg na gisatul Abdoulaye ak Aman Mahmoud ñoo amee woon daara ji bu kii jàngalee juróom benn weer dem Mauritanie euh, euh, keneen ki jël jàngale juróom benn weer ñoom ñaar ñoo ko daan awante bi nga xamee ne nag dem nañ ba xam ne tari nañ alxuraan bàyyi di leen jàngale boppam xam-xam ci mbaar mi téere yi mu leen war a jàngal buñ paree ci ngoon gi ñu dem ci béy ma am na fa yeneen téere yu ñu jàng ba ni leen yóbbu xaayara

wutal leen bourse misra looyee leen kër ñaar ñu nekk bokk kër ñi am jabar am benn kër ñi amul jabar bokk bokk ay kër bu jógee màkka bala mu ñëw euh, bu jaaree misra jox leen li nga xam ne moom leen leen war a jox daawuñ jaaxle ci dara dara dara loo xam ne aju na ci xaalis ku ci bu examen jotee bañ examen ku ci at me da nga jël daf la yónnee bee nga ñëw Sénégal mo la yone auto bi nga xamne mom def na la jël auto Dakar bo ñëwee ñu fekk bo ñëwee xar mi nga xamne mom la lay lakal yow kenn yaa mom ngeen bokk ko bu dé ñaara ñëw bu dé ñaara ñëw ñu bokk ak mom fekk ñu ngi fi ci vacances bi ñok baay ñoy bokk añ ak reer ak ndik fekk way ñi bee bu ñuy dem daf leen di boré Munir Salih ben naari bari loolu nek nekk jay yere costume ak ay yoy bu ko defé daf naa demal ci munir sal nga jël li nga soxla nga jël li nga soxla seen yere manki wul seen dund manki wul seen dara manki wul waxtu wul gisee ci yow nak ne la nga woo jàng boo ko la fay defal dara motax baye domam yep dafa len tegon ci organisation bo xamne par force nga jang ndax kenn nanguwul bàyyi mere la kenn bëggu sax sa bàyyi mere su surtout bàyyi bu melni ni waye waaye bo xamne xam ne daf laa gàddu lépp sa jang il faut nga jang seen jang yi ndan jang ba réussir fa tabarakallah kenn ku ne am sa diplôme bay mo len tek ci yoonu nga xamne ne ñu jang ba exifi ñom ñep tabarakallah li bàyyi bëggon ci am ko ndax itam comme dama la waxoon ne nit ku yeewu la moo ñaanoon ne yow sama borom maa ngi la ñaan bépp doom bu ma jur nga def ko muy wàllu kon donc doom yi ay wàllu yu lañ a doon parce que ñaan na ko ba yàlla nangu ko te wàllu yu mënta mënta def lu normal moo tax bi leen bàyyi jële pour teg leen ci yoon yi pour ñu tegu ci yoon wi dafa yomb ndax wala fi dañuy wax ne ko jonkan pour nga bokk mu daan dafa yomb. bàyyi doomam yi nga xam ne dañ ko ko joxoon séddu ko ak doom yu mu jur amul séparation bu korite jotaan dafa jël ay dampi piis jox ko Modou mbay ñi bàyyi jur ñoo Modou Mbaye bàyyi dafa wax ne ko ñu ma jurul nañ natt seen yére yi ba pare ñu ma jur dóoru ñu doy wax bu ko defee Modou Mbaye oo ñu man sax ci laa bokk jamono yooyu maa ngi jàng alxuraan ñu mu natt leen ba pare doom yi bàyyi loolu ñëw buy séddale doom yu mu jurul lay sédd ba noppi door sédd doom ma sëñ ma nettali na ma dafa ñëw xaayara ñi di ko teeru si ma gis doom yi am ci ñoo xam ne dañoo bokk benn oto boobu boobu gouvernement boobu gouvernement ministre ñoo koy teeru mu ne chauffeur bi taxawal mu taxaw mu ne eh du nii wàcc leen ngeen jaxasoo nit ñi lii lan la ngeen di jël seen oto yokk yi eh, doo duggal fii doo duggal fii doo duggal fii ngeen jaxasoo dafa fonkoon kóllëre fonk na kóllëre kóllëre boo xam ne fonk na ko fonk boo xam ne jéggi na dayoo daf wax ne bépp nit boo xam ne ñu ngi lay jiñ baax te amoo kóllëre mën a baaxoo mooy nit ko baax nga am ko xam nga moom yàlla daf koo may loo xam ne eh, boo amee ku mu ko may xaw ma bàyyi numéro téléphone boo koy jox daf naa la waxal ma dégg nga bi na ko mën a waxal ma dégg amee fukki at bu la téléphone lépp lu mu dégg dootu ko fàtte am na bés ñu dem présidence man bu ma ko daan conduire bu ñu dem présidence ñu ñaar rek kay ànd man bu may conduire kenn du ñetteel kenn ba jëlee oto bi du ko conduire ñu ñaar rek kay ànd bu daan def présidence ñu ne la kaay bi ñu demee Senghor jox ko benn numéro téléphone bi ñëwee ba ci ma ne bi de war nañ ko denc mu ne ma kii kii bi euh, Moustapha Moustapha Moustapha wax na ma ko ba dégg na jàpp naa ma ne ko bu ñu denc ma yéen eh, Jibril man dama fàtte lu ma dégg sama noppi dootu ma ko fàtte mu ne ma keroog ba ma doon feral sax xam naa leen ba léegi fàtte wu ma leen man lu ma dégg sama nopp bi dootuma ko fàtte lu ma gis sama bët bi dootuma ko fàtte boo àndeek moom boo àndeek sa xarit ñëw ci moom nga xam ne dangaa ñëw nuyu si ko yaa ngi ko fay dóori ko ba noppi wax ko sa soxla bu dee soxla zaay loo am mu jox la ko bu dee soxla baatin mu fajal la ko boo ko dellu saate kenn du la laaj yow yaay kan sa xarit ba nga àndoon présenté ko mën na leen te bàyyi bépp soxla boo ko wax du la wax nekku fi du la wax demal ba beneen yoon du la wax lii nga fi fekk soxla bi lu mu rëy rëy daf la may kamte yoon nga ne déedéet mu ne tekk benn minute ñaari minute ne oo leen ma diw mu ne ko dalal ma sama gan bu fekkee nekk nga koo xam ne da julli si jumaa ji boo ñëwee si jumaa ji boo ko néew ma ne fàtte la de toogal rek bu doon bu doon fukki millions it benn bés na la oo guddi waaye bëccëg de boo ñëwee toog ci kanamam mu ne nangam nga wax ne ma nga soxla ma mi ngi nii nangam li jënd na ko salaat ak li ngay passé nga yeewee ko dem du la wax fekk ko fi du la wax li nga fi fekk du la wax ne dafa defal benn yoon soxla bi ci boppam moom la lay fajal du gàntu kenn lépp la ko wax rek mu fekk bu dee ci baatin yàlla may na ko ñaan koo xam ne dimbale na ko dana ko faj bu dee ci zahir it yàlla may na ko wërsëg boo xam ne boo toogee yàkkamti woo dina ko jël teg ko ci sa loxo nga dem loolu daal dundal doomu aadama waaw dina ñëw euh, nit dina ñëw wax ko soxla mu yëkkati jox la nga dem ba ci xay gi fi ñu duggee xool ko dellu si ñëw ne ko lan mu ne lan la nga ne ko man di loolu di laaj junni ñu jox ko fukki junni il faut nga dellu ci kilo ba ndax dafa ju waaw ah, damaa foog a ndax waaye dama ne wax ko bopp wala nga ñew di wax di ko wax mu jël lu ci lay jël lu ci nga lay wala nga ñew tok ci kanamam kep ku tok ci kanamam bu xalaat loko jox moom may xalaat la mu jox gis na bataay ku tok ci kanamam ni ko bëna noppi mu dindi di jox mu ne ko am damay ñëw sama dem mu ah, dal dal ci ron ngeganaay moom ku tok ci kanamam dafa japp ne moom mo la ko soxla japp ne kenn mo ko fajal ko tok ci kanam rek mu yëkkati jox la benn ngay talibé indi ko dem mëna mëna mu ne ah ko wala dangay dal di jël ko jox def ci waye mom kay mom bo top ci kanam rek te pare pare la jox bu julli jël tisbaar ba ñëw dañu bu ci yëpp yëpp ñëw ci mbaar mi amu nuyu ma bàyyi dir jamono bu amu nuyu ma bàyyi bu jël tisbaar ba ñëpp a dugg ñëpp toog ñi nga xamné seen soxla man man na ko faj léegi mu faj nga xamné seen soxla dafa laaj top fi ay fan mu yóbbu leen ba ci suñu leen dara ba ñëpp jeex ñëpp jeex de ak soxla boobu la indi nag bu dee soxla ba baatin la mu yóbbu la jox la suñu àll yi suñu àll yi seetlu bu dee loo koy laaj ci lislaam wala ci beneen façon loo xam ne dafa jëm ci diine ji mu tontu ci taxawaay ak loo ko laajee mu tontu bu dee lu mu la war a jox mu boole la Mamat Thiam fekkee ne xaalis a ngi fi. mu jox la ko dafa lay dafa Omar Thiam ba ñëw mu ne ko joxal ma kii nangam bu Omar Thiam bëggee lampoos mu ne ko yee eh, ànd na moom génn ci biti bu la ko jox kenn du ko fekk li mu la jox bu ñëpp jeexee nag ba kenn dekkatu fi nag mu door a añ waaye fekk nit ñaa ngi fi dañ lay wax ak ñoom fajal seen soxla yi zaahir yi ak yu baatin yi door ñu taal ko tàggal ak du mën a añ loolu doon dund ajuma bay moko ko daan julli ci def sey ali mo don imam bi daf koy fek amul ben julli lako tambale fayal fajar tak takkusaan timis ge yeb ci juma ji lako bay di julli bi muy dox di dem lu mu taw taw wax set ñu ko ko urée sol bi muy jigi ndox ñu diko nitan nital muy dem di julli ci fajar ak lu mu taw taw dama dina julli ñi na ko ba mu mënee dox ba xam ne dox bi yomb na ko téye bi dem téye parasol bi jóg bu fekkee dafay taw bu fekk bi mu demee nag ba xam ne ci cinq ans yu mujj yi wala quatre ans yu mujj yi nga xam ne dox bi dem dellu si yombatu ko damay indi oto bi buy salaatoo mu indi oto bi mu dugg yóbbu ko buy salaatoo damay dem teggi disque bi gaaw taal oto bi génne ko mu ma dugg ma yóbbu ko ma julli ji ma fab tournevis bi teg ci kanam oto bi bu ñëwee ma fab tournevis bi teg ci taabal bi tegal ko bande alxuraan bi toog ba mu jàng vingt-quatre minutes yi ma wëlbati bande bi dem dem diggante boobu rek la am nag dem sama kër ba neuf heures oosu ma bu ñu nekkee rek oosu bu ma génnatee néeg bàyyi ëllëg si ci guddi la yoon man bu ma génnaan néeg bàyyi kenn du fa dugg te maa fay njëkk a dugg fajar fajar bu fajar maa fay njëkk a dugg te guddi bi moo fa génnee dana guddi guddi koo xam ne kenn du fa duggal bu julli jee fajar ba ñëw ak fi muy ndékkee 9h 9 muy ndékki bu fekkee na nelaw heure boobu lay nelaw bu fekkee dina nelaw heure lay nelaw diggante bu jullee fajar ba 9 diggante boobu ci lay ci lay tëdd. boo jógee ci néeg bi da gis na kii gëmm na xam nga dafay nelaw xam nga nelaw la waaw bàyyi bu ayaan bu bu bu war a ñëw dafay ndekkee miir na ba noppi bu ndekkee miir ba pare ba bori ay dix heures onze heures midi mu dem ñetteel yendu fa añ fanaan bu bët mu ndékki ñibbisi benn bés lay dem bu fajaree mu xëdd julli fajar tëdd tuuti ba jant bi mu ñibbi si ndax daf maa wax ne ma gan yi ñëw mbiri la te yàlla tax leen a ñëw ak man bàyyi leen fi dem di indu ci feneen gën moo tax weeru koor bi daal mbiri lay fa la jullee tisbaar fa la jullee takkusaan fa la jullee timis ci jumaa ji ba ñëpp génn dem ma door a yëg bagage bi ñoo dem suñu ay naa fi la weeru koor bi bàyyi ñu ay bi ñëw naa fi si ci jumaa ji ñetteel lay naa fi ne ko naa fi la bu jot dana taxaw naa fi la bi yëpp dafa taxaw yëpp ku raaka yaar yëpp ko taxaw bi rabbaani jiite naa fi la ba ci Amadou Mahmoud rabbaani ba ci Abdoulaye Rabbaani yëpp dafay taxaw waaye feebaram bu ko yàqal lu ñuul ci wee ci li war def ci top yàlla ci diine bi di jox ben ngant ne mënumaa yow nañ julli ben ngant nañ naafi la mënumaa yow bu wax mukk keroog bu ñu dem loolu ci naa aj keroog bu ñu dem loolu dafa jiite aj moom pare loolu dafa weeru koor bu jotee bu na naafi la ba pare naar ak aw sa yëpp dajal ne bari ñu tàllal bi ubbi waaye bu ndogoo ba noppi dina naan attaaya waaye bu ñu naafee ba pare dafay tàll beneen attaaya pour gan ci dégg naar yëpp ñëw afsa yëpp ñëw ñu bu bunt yëpp la mi ñëw toog di jàng addis di ba xam ne ay boor yi ay boor yi bu ko defee ñu tëj ba bise yëpp la ñu ñëw toog mu tëdd ci lal bi naar yëpp toogal aw say ci biir néeg bi ñu attaay jox kilifa yi ñu toog ci peron bi néeg ba fees peron bi ba peron bi yëpp jot noonu la def bëccëg bi dafay final quoi bàyyi bi bu si gàmmu jotaan ba si gàmmu jotee du añ du war waay du tuuti lay lekk seen hmm? te tuuti lay naan bu dix bu neuf ci wax ma dugg ci biir jàpp ci bés bi ñëw ci sàmbara bi toog ci xoolal ma génne yi muy sol mu solu ba pare mu solo ba pare ay dix minutes euh, cinq minutes mooy ko defee mu jël tamit toog ci xoolal bi te préparé na ba noppi ma ma toog dem ma toog dem bu fekkee góor noonu ñëw ànd ak moom dem ci gàmmu bi bu fekk 10 heures jotul bu góor noonu ñëwee maanaam dem ci tànk bu fekkee ne góor noonu jotul mu ngi xool montar bi rek bu 10 heures rek kàngare mu ne bëri jóg taxaw dem toog fi muy gàmm fekk bu tàmbalee juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ciy dem ba mu jeex fekk 10 heures ci bëccëg jot na mu tas gàmm gi tas ñiy tuub tuub ñi jël wér la jël wér la mu ci néeg bu duggee ci néegam nag ñu taal ndékki ndax fekk réew ñu taal ndékki ndékki ba noppi gan yi nag fañ doon nekk mu leen daal gan yi nga xam ne dañoo war a ñibbi te di ñëw ci gàmmu bi nga xam ne dañu am lu mu leen war a jox kenn ku nekk fan la dara xam na diw maa ko taal taal sànni bu reer jotee bésu gàmm bu reer daal ko kër naa la donc mu daal ko kër naa diw maa ko dalal kër diw diw maa ko dalal kër diw diw maa ko dalal ba gan yëpp jeex kenn ko du fàtte benn gan kenn ku ne fa daal xam na gan yooyu nag am na ci ñoo xam ne daf leen di yeewi ci si gàmmu bala moo tëj noonu laa dox ñu gàmmu. bisu gàmmu mooy jaar jaar bi nga xam ne Mouhamadou Bachir yi wax na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. juddoom ba ni mu saaba yi kenn ku nekk sa carrière bàyyi noonu daan gàmmu. Oh, Kabir Faye ak sëñ Omar ñoo ñooy jël ñooy ñooy way ñi ci des di aw. mawlid bu jullee gee ba noppi mm. dafa am mawlid buy jàng bàyyi ci boppam mooy jàng mawlid bi bokkul guddi gàmm gi guddi gàmm gi mawlid bi lañ ko ubbee ba noppi dina tàmbali gàmm gi koy jàngal boppam ñii di aw bu bis gàmm gi jotee nag pare ñii di aw bu mu paree nag doo dugg nag ci burdu bi nag ñii woy bàyyi di firi nga loolu dal ko bàyyi mu ne yàlla nguuram gi rek parce que jox na ñëpp yonent bi sallallahu ko lu mu jàng dana mokkal mokkal boo xam ne bu koy wax ak du jàng bu téye te waa ba léegi ñii gàmmu dañuy woy rek ñu dañuy woy rek ñu fi ñu taxaw ci minbar bi ba si ba si àjjuma taxaw rek di wax te xutba yi ñuy wax ci jumaa ji du benn xutba de ay xutba yu bëri la. xutba fukk ay xutba yi xutba xutba la maanaam maanaam weer bu ci nekk ak xutba boobu jamono bu ci nekk xutba boobu xutba gàmmu xutba tabaski xutba weeru xool xutba aj yëpp am Babacar ci mbir la ba léegi gën a jógee. Mame Sam Baye maye na ko. waaye dafa ci nañ nañ bàyyi fi ñu jullee Korité Tabaski kenn du ko fa ba léegi waaw bu fekkee ne Korité la bàyyi li muy Korité mbir la dafay Korité mbir la waaye néew na bàyyi Tabaski mbir la naka la koy jox bu dee Korité moom. bu jullee fajar pare la lépp tudd Korité heure boobu diggante bu jullee fajar. ak fu muy nekk dafa côté bi wala lu ci côté bi lu ci côté bi lu ko dem ndax bu jëlee fajar ba pare lay indi natt muuru koor yi képp koo xam ne moo lay dundal moo lay natt muuru koor hmm? waaw man ko wax même xay même bési tabaski te nekk fii képp koo xam ne moo lay dundal waa Mbiré sax mën ngaa jox tabaski léegi ndax xay naa kenn ku nekk moo la jox tudd kenn ku nekk moo la jox bu dee weeru koor nag képp ku muy dundal moom képp ku muy nekk de amarkata mooy nag bàyyi yàlla yow mooy nag parce que moo amee magasin bi mooy indi pot bi ñuy natte toog bàyyi toog diw natt diw ba ñëpp jeex ñu ngi def ñu ngi def ñu ngi def ñu ngi def yaa ko kay dee ñu xam ne ko pour bind ko ci kay dee di léegi diw naa la léegi xam ne yëpp xam nga yëpp xam nga yëpp xam nga di ko dal ci soxnaan bi doomam yi doom yi dénkaane bi waa dëkk bi ñu war a dundal ñu ñu war a def moom koor lépp xam na te du sàkk kenn kenn bu ko defee bu sàkku feesee ñu war a tàkkal sàkku yi dajal bu seetee ñi nga xam ne éloon nañ ko soxla nañ ko ñoo jëlee loolu laa doxalee mel. kon ba bi ci bisu tey bisu weer booy koy sëriñ Aliou mooy téye kayit gi bàyyi di wàllu kayit sëriñ Aliou mooy téye kayit gi bàyyi di jàng bu laajee wëlbati sëriñ Aliou wëlbati kayit gi bàyyi di jàng bu laajee beneen wëlbati bu wëlbati ba ko bëgg jeex bàyyi toog waxtaan ñu ñu jóg dem ñu ñetti saa ay bàyyi mbay ñes moo programme siyaare bàyyi siyaare xaalis dafa am bu nawet bi jeexee ba ba ba ñu ñuy jaay seen dugub bi bu du boo xamee tool yi pare nañ ba xam ne nii yóbbu nañ seen dugub yóbboo ci ba pare bàyyi mbay mooy tëral siyaare dugub bi kenn ku nekk génn ci sa dugub bi nga béy. ñu indi ko baax ñu ko màgg nañ bàyyi boobu bu siyaara jotal la xaalis siyaara bi ak ñu organisé siyaara bi Baye Mbaye sëriñ Aliou bay Cheikh Ousseynou bay Cheikh Omar Touré bay Cheikh Amsatou Seigneur Rafal sama xarit ci baay Cheikh Ndaw moom moy moo moo moo moo doon moo doon suñu koor parce que comme affaire comptabilité moo ci da topp jamono yooyu te it loo xam ne dañ liñ ci gis ne ay damb-damb la nan lañ ko war a organiser déwén ba du am bu siyaare bi jub si itam sëñ Aliou mooy bind lettre yi ñoom ñu daje wax ni ñu koy bindee waxtaan ci ni ñu koy bindee mu xaddam bu nekk ci ñu mën wax kenn ku nekk ñu ne la sa appartement sa sa dëkk boor bi nga dëkkee day boori kër ma jëleen jëm ci kaw ba Cheikh Ousmane noonu ba Cheikh Oumar Touré noonu kenn ku nekk yóbbu sa leetar ñu ku jekk jot sa leetar bi kenn nga ñëpp lañ bi bu ñëwee ci bi xaalis si bi yëpp ci loxo si yàlla yi lay bi passé ñu compté ko a xaalis bi xam ne waa Médina moom la ñu siyaaree ñu boole ko yëpp wax na siyaare bi ren nangam la suñu ak ñu ànd ak loolu teg ko ci loxo loolu nga def suñu siyaare bi dafay tase jamonante rek dëkk yi nga xam ne dañ daan bàyyil bàyyi tool ah wax ne siyaare siyaare dëkk bi nangam la tool baay bi bi ñu ko jaayee nangam la ñaari amul la ñu boole jox suñu yaay xam ne dañu si bàyyi yëkkati xaalis teg ci loxoom def ci loolu gannaaw li wala mu jox alaaji bi sax mu laaj ko tam mu def ci poosam ko mu mayee wala mu def ci bu def bokkul ñu aussi jamono yu mujj aussi ay nit ñoo xam ne eh, bàyyi dafa daan def xam-xam daana fa béy tool waaye tool bu dëppoo ak dëkk ba la dëkk baax na nga mën a béy waaye mbéy mu rëy ñu daan béy ak ñeenti tracteur tey ba la ko woon la fa daan béy ci li ci ëpp gerte lay doon am na fa benn at mu defar toolu ñaar bu mag a mag a mag jamono yooyu kii bi ñu war demee dund bi ñu war demee demeewu ko daanaka réew yëpp ci ñaar bi jëm moom moo xamoon tax mu def ko kenn waaye daal moom la xamoon dugub dugub daaw ko bay trop daaw ko bay sax ndax siyaare bi moo tax ndax siyaare bi bu ñëwee magasin ba xam ba xam ne li war ku may la jëlaat na mu bàyyi ko bàyyi ko waaw bon siyaare bi siyaare bi xaalis bi tam ñëwee ba yokk ko bi parce que yàlla passé dix jours dafay maye ñi nga xam dëkk ak soxla yi am ba ñëpp jeex booy téléphoné nag e ñëwal ah, waaw jëloo pare ba jëloo fay oto bi alaaji ma di maye di maye ba ñuy gis too ko may ngay oote di maye <laughs> waaw bàyyi ñu daan yóbbu màkka ñi nga ci te ba jamono muy doomi dénkaane bi nga xam ne dañoo nekk mbir te amul dooleem yëngu du loolu soxnaam bi bu ànd ak yéen bu dee maa dëkkale bu dee maa dëkkale bu dee maa dëkkale ba nit ñi loolu la ñu ñi nga xam ne dañ ko daan discours mag te nekk euh, ci Sénégal euh, daana ci tàng ak lim boole leen ci ñu yóbbu ci njabootam bi dama ci boole la amul dara amul perte dama ci boole jaxasoo ñoom li ñu lekk la ñuy lekk bi ñu dal la ñuy dal li ñuy naan la ñuy naan li ñuy def la ñuy def li mu leen di jox lépp la boole ba ñibbi si mu tax ko kenn ku nekk bu ñu sànni jamono sax mooy ànd ñoom bu ñuy daw soir mara mooy ànd ñoom mooy ànd ñoom ci lépp.

waaw bàyyi bu daan bu demoon naka dafa daan dafa daan am xaalis buur dafa daan jox xaalis waxuma sax yi nga xam ne ay borom xaalis bi ñëw di aj kenn ku nekk yaa ngi pare sa addiya am na benn muqaddam bu nekk Éthiopie 500000 la ko daan jox par an bàyyi mas naa toogoon moom ci raw bi ci raw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw sa yeeg naar yi di ko jox addiya ba xam ne sama toog ni sama arme bi dafa fees. ñëw di barkeeltu am na kenn suñu doon gardé romb bi ñu ne xaram xaram xaram ah fii bi ñu paree ba ëmb lépp bàyyi aw ko ba mu ñëw mu ne ma jox ko ji waaw jox ko ko bi ma ko imbilee waa ji dafa ndox bàyyi bu duggee ci bu ñëwee màgg Medina bu duggee ci biir jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa yëpp kenn ku nekk la jox ko ji tisbaar fajar fajar bu jullisee fajar alkaati yëpp dina njëkk ko def cinquante mille bu jullisee takk tisbaar alkaati yëpp ko def cinquante mille bu jullisee takkusaan salaam alkaati yëpp dina njëkk ko cinquante mille bu jullisee gee alkaati yëpp kenn ko def jox cinquante mille fekk mu jigéen ñi waaw Màkka nag moom euh, xam nga ko Màkka moom euh, jàpp jumaa ji dafa rëy ñi nga xam ne ñi xam ne ñoo daan ñoo ñoo ko daan wutal xam ne fu mu toog spécial yooyu am na lu muy def ak ñoom bàyyi bu dugal ci kaw du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd rek kenn du siyaare moom ñu muy àndal ñooy siyaare ba pare alkaati bi nga xam ne dafa fab gannaaw bi teg ko ci palanteer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu àndal siyaare ba noppi ñu door a organiser benn fajar noonu tisbaar noonu takkusaan noonu donc ñu julli la ziar waaye bu bu ziar ñëpp la ñuy déggal mais nawet daal am na fu muy daal foo xam ne spécial parce que parce que bu dee may daal fu muy daal ak ñu mën a invitation bu jaay ak bu nekk dañ koy euh, organiser am ujjaay yi dañu sol seen yére yu mag yi takku sax ñëw toog ci mbaar bi ñoom ñëpp ñu sol seen égal yi ñu sol seen wax na mag yi ñoom ñëpp ñu ko góor bi fii jigéen ñi bi bàyyi waxtaan leen ci ci affaire yi ak ba déwén ñu doon sol ak bu waaye bàyyi ñu naan jëndee ko ci li ma ci xam jëfandikoo rafet surtout président bi Senghor Senghor moom jëflante bu rafet Senghor lu mu daan def ci digganteem ak Baye comme que Baye moom mosul ànd ak moom ba ñuy def élection yi Lamine ak Senghor daf ne moom xam na ne Senghor mooy gagné Lamine Gueye ci élection yi waaye Mouhamadou Lamine ak Léopold mën na ànd ak Léopold Baye Mouhamadou xam naa sax sama mooy gagné élection waaye moom moom la muy génne la parce que tur bi moo leen séparé du d' accord ànd ak lew ko waaye ba sama gagné itam euh, daanañ ci biir gouvernement bi ci yi ak ñi nekk ak sëtu sama def ay ay affaires yu doy waar waaye sama ci boppam moom reconnaître na bàyyi 100 pour cent. téléphone bi nga xam ne moo nekkoon ci bopp laa li bàyyi ba Senghor yëgee ne facture yi dafay cher ba léegi dañ koy coupé dafa wax su kaw wax ne bu facture yooyu te ni ko yónnee Dakar secrétariat yi ñu ko fay bari bàyyi gën naa di Senghor fay dig bi bu Kaana yónnee woon baax ba mu ñëw ci port Dakar Senghor fay doole. Mercedes bi bàyyi jëndoon mu ñëw ci port Dakar Senghor fay doole. te boobu moom Senghor rek ñoo ko am Sénégal teg ci ci numéro bi rek moo leen ko Senghor moom ñu doon ah Baye dafa wax ne ku ma liggéeyal ma fajal sa sa sa aajo te aajo président mooy nga nekk sa peuple ba xëy bàyyi sans problème kon Senghor Baye fajal na ko aajo parce que liggéeyal na Baye te Baye ne ku ma liggéeyal ma fajal sa aajo. te aajo Senghor moo doon mu nekk ci gouvernement bi ba jóge fi ci jàmm kon nekk nag ba jóge ci jàmm kon mel na ni eh, liggéey bi mu liggéeyal Baye te Baye wax na ku ma liggéeyal ma fajal sa aajo kon loolu moom la ko Baye fayee man loolu laa gis ko ci loolu laa ko gisee kenn ku nekk sa gis waaw diggante ma yeneen tarixa yi Baye ni ko nit yónnee ci xew-xew sa ci sa kër sëriñ ci kër ci kër ci kër sëriñ dem na ci wala bu fekkee ne tukki na wala maam ngaan dana ci egg boo xam ne bu ñëwee yoo soxal na seet xam ne kii mat na ndaw euh, ci affaire tarixa yi dafa am benn am benn colloque boo xam ne dañoo dañee man nañ ñu mat vingt personnes ñu ne dañoo bëgg a laaj tariqa yi nekk ci ci Sénégal ñu ñu daje Dakar bu ma juumalee ay étudiants lañ wala ay intellectuels daal xam-xamu lan lañ waaye mën nañ lu man ñaar fukki ñooy dañuy laaj tariqa yi nekk Sénégal uute bi lan la moo leen tax ñu téléphoné Baye ne ko dañuy ñëw Kaolack nañ dem Touba nañ dem Ndiassane. dinañ dem Tivaouane dinañ dem Layeen dëkk yëpp nga xam ne am na këru diine dañ fa dem waxtaan ak ñoom ci juyoo bi nekk Sénégal ci affaire tarixa yi bàyyi laaj leen ban bés lañ ñëw ñu wax ko bàyyi bàyyi leen man bu ñu leen taxawee ba pare damay dem ci gannaaw koolam dëkk bu ñu wax pause yi foofa laay toog bu ñu liggéey waaye dinaa leen bàyyee koo xam ne ci maar wax bu ngeen ñëwee dinañ indi bàyyi ne Isaaxa keroog bi ñu ñëw ñu téléphone bàyyi bàyyi ne Isaaxa taxaw ci mbaar bi bu ngeen jógee Dakar ñëwee nga indi leen cause bi ñuy dem na ma na nga jël li ma naan ak galaas tax dañuy am ay gan yaakaar naa mën na ñaar fukki nit lañ def bi ñu toogee ba ba ba boori ay cinq heures et demi ñu dégg seen cortège ñu indi woon nañu mat ñeenti oto xamu juróom ñëw gaare ba leen ànd ak ñoom ñëw ci biir néeg bi ñu toog ñu bàyyi ci cause yi ñu mag néeg bi bàyyi ci loolu léegi léegi mag ñu toog ci seet si préparé naa yëpp ñu toog ñoom ñëpp ñu toogee ba jàmmalante ñoom ba ki nga xam ne mooy mooy njiit li ne bàyyi dañoo bëggoon a dugg ci waxtaan bi bàyyi leen ñu ne bàyyi ñun li ñu tax a jóg mooy affaire tarixa yi ci Sénégal wute bi ci nekk bàyyi ne man de ci yàlla ñoo xam nañ loolu lu tax nga nekk ci yàlla. ma ne li tax ma nekk ci yàlla ci li ma leen mën a wax ngeen mën koo dégg ngeen mën koo dégg parce que nit ki booy wax mën nga wax ci da ko wax ci mën a dégg mooy yàlla dafa wax ne yàlla ne tudd leen ma uskuruni uskurkum wala takfurun laa ilaaha illallah jàmm yàlla war koo wax astafurlah ñëpp dajee ne kuy julli wala wax astafurlah yàlla baal sa bataay salaatu wala nabi yàlla dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi yàlla ne man day ak samay malaaka ñu julli ci yonent bi ñëpp julli leen ci yonent bi donc ku nekk wax tey Cheikh Al Amath Tidiane jël ñett yooyu def ko muy def ko muy wér doom bi ndax ku ko deful it ni ko Cheikh Amath Tidiane Chérif diglee it yaa ngi koy def bépp ci lii boo nekk julli faaw nga def di nga wax laa ilaaha illallaah di nga wax astaghfirullaah di nga julli ci yéen waaye nag man bu ma ko defee ba noppi wécc sama bi sama bopp laa bi kenn laa ci nit ñi rek julli ñëpp laa defal ñu ne ko waaw wute bi nag lan moo ko war bàyyi na lislaam mooy sër bi nga xam ne moom la julli ñëpp sàngoo tariqa yi. mooy njàmbaas bi njàmbaas bu bëggee yàq seen dañu war dindi njàmbaas bi sànni ko ndax tariqa bokk ci lislaam yëpp ñoom ñoom ñu téye leen jëm dañ tàll bàyyi yàlla leen ñoom eh, affaire weer yi li nga ma ci laaj wute bi nekk ci biir weer yi weeru koor yi weeru tabaski yi nga xam ne dañ koy sëñ si dañ koy weerante Eh, Senghor bi mu tëralee code de la famille te sëriñ yëpp dajee ci bureau premier ministre Abdou Diouf jamono yooyu bu ñu paree Sidy Nourou daf ne Abdou euh, euh, Abdou Diouf daf ne Sidy Nourou boobu Sidy Nourou mooy mag ci kilifa ci ci ci ci jataay bi mu ne Sidy Nourou damaa bëgg ñu wax ci affaire weer yi Abdou Diouf moo moo souligné loolu moo premier ministre gannaaw yéen sëriñ yëpp yéen a ngi ni toog nañ wax nañ wax ci affaire weer yi si noonu la ko bax bisimilah ñu ne tekk na tekk ba mu yàgg kenn ko ah si noonu la kenn du wax ñoom na ko bàyyi ne weer wi ñun ñii fi toog kenn du ci gis weer wi dañoo koy gisal waaye alxuraan dafa wax ne bu fekkee am na koo gis ci yéen ñun ñi ne bu fekkee ñun ñëpp kenn ku nekk dafa gëm sa morom. ba kenn ku nekk bu ne weer yi feeñ na ñëpp ne weer yi feeñ na kon par jafe-jafe weer wi dafay jeex waaye dafay fekk ñu gëmante ba xool sama weer yi feeñ na mu gëm la waaye fekk loolu amul ba pincam yàlla beneen weer yi du fi jóge ne waaw li ngeen na léegi ndax ñun ñëpp mën nañoo d'accord ñëpp ne pat ñu ne pat na pat ma ma ma le premier ak ñëpp barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan